mun Maïmouna Ndour Faye euh, kenn la ci euh, landerneau médiatique ndax jaar-jaaram euh, taxawaayam ni mu li mu prouvé yëpp kii qui n'était pas du tout évident yombul xam naa ne Rabi dina si dellu si léegi mooy nga nekk soxna nekk ci benn foo xamante ni xëy na jigéen ñi dañ daan ñëw ñu contenté wu ñu nekk salarié moom mu nekk salarié ba pare amaat courage ak audace jéggi loolu ak li ci nekk yëpp ci ay obstacle ba nekk entrepreneur lu ne mu koy dégg nag tous les jours mais mu tenir très bon ba tey sunu borom def ko mu nekk une réalité euh, ci secteur privé ci wàllu média donc loolu jàpp naa ne elle mérite euh, tous les honneurs ak ñu tatagal ko sargal ko Euh, moom moo gën fuuf li nga xamante ni loolu lañ def waaye li ñu def nii tamit e je parle sous le contrôle de euh, Soxna Rabi du c'est pas anecdotique dafa dafa dafa c'est symptomatique ci sunu société ni mu mel la banalisation bi ñu am ci wàllu violence ak wàllu menace qui ne reçoit pas des menaces dans ce pays kan lañ dul xupp fii ci réew mi amut waaw man exemple laa ci euh, xupp ñu xupp ñu ci la ñu dëkk ndax xëy na rek xalaate woon ni ñu ni ñu bëgg nga xalaate est-ce que bi nga nekkee taskatu xibaar wala bi nga nekkee ci rédaction yi ci plateau yi daan nga émettre ay idées jot ay messages. bien sûr bien sûr am na bés boo xamante ni dama xëy 9 ba 17h dañ may saaga. Hmm. ñu jël sama numéro téléphone dugal ko ci benn groupe WhatsApp. Hmm. jël numéro bi 9 ba 17h. lu ñaaw lu ma déggul keroog amul. ay message ay appel ay ay appel ay vidéo lu ne lañ lay yónnee loo xamante ni la décence sax daf lay interdire nga wax nga évoquer ko ci ay plateau de télé et c'est ça que tous les gens ñi nga xamante ni yëpp dañoo am opinion. Mm. bu libre mm. nekk dans les médias. Mm. mais loolu la ñuy dund à longueur de journée. daan nga porte plainte. benn yoon laa ko mas a nar a def te mujjuma ko sax def. nga ni jaru ko waaw mujjuma ko sax def benn yoon laa laa ko nar a def mais bëgguma ko sax def am na ci beneen technique boo xamante ni tamit gisoon naa ko mooy ñi lay yónnee ay messages yëpp dañ koy def avec des numéros yoo xamante ni c'est pas des numéros. du Sénégal maanaam opérateur sénégalais c'est des actes lâches en des c'est yoo xamante ni. dañ koy def bu dee dañuy làkkatu. yu bëri am naa ci ay ay ay vraiment ay exemples yu bëri mais en tout cas. li ma bëgg a wax daal te loolu mooy suma jéego yi ñëw fii mooy euh, war nañu gën a taxaw pour sauver sunu réew waaw ndax euh, on a frôlé le pire ak koo xamante ni du nit ku simple nii rek muy soxna si mm-hmm. mooy mun a nduur fay lu ne mënoon naa xew yàlla suñu borom moo ci def sutura effectivement mais lu nekk mënoon naa xew mm-hmm. mais il faut jamais céder à la peur jamais c'est-à-dire que